Assalamu alaikum, assalamu alaikum, fidèles auditeurs et auditrices de sunu FM comme ni ñu baaxoo di ko defee alxamis bu nekk bu 16h Cap Sénégal pas ci njiital Abdoulaye Fall en partenariat avec sunu FM di leen dicté une émission politique de développement local et rural qui l'a koy defal di soxna Mariam Sall ñuy plateau une femme leader une femme de développement muy kan soxna la présidente du réseau national des femmes de la convergence alternative pour la prospérité Sénégal natange donc Sorna Ao, maa ngi lay nuyu di la ziar te di la jox sa ñuy am euh, recevoir ci plateau bi ñu fas yéene waxtaanee bu la réponse contre le Covid-19 les propositions de plan d'action aux organisations locales ah te awa ñu lay wax ne la am nañu mbégte bu mag euh, di la gisaat tey ndaxte wax fa dëgg yàlla namoon nañ la namoon nañ la ñu lay euh, bàyyi rek nga nuyoo ak euh, auditeurs yi auditrices sunu kër FM ñu tàmbali waxtaan wi. Ah, asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa ah, maa leen gënoon nam maa leen raw fuuf. di nuyu di ziar ñëpp di nuyu auditrice ak auditeur sunu kër FM maa ngi leen di ziar bu baax a baax di présenter samay souhait ak samay vœux ci tabaski bi ci sunu bi ñu bokk musulman yi di leen baal àq di leen baalu àq di ñaan yàlla nañu yàlla boole baal.

ak partenariat am ak Cap Sénégal naataange mu rafet lool macha allah président Ablaye Fall dox ci diggante bi yombal ko ñu koy ñaanal yàlla fi yàgg te wér kon Marème maa ngi lay nuyu di la ziar di ziar diaspora bi yëpp di ziar. Sénégalais yi yëpp maa ngi leen nuyu di leen ziar ñoom bu baax a baax a baax. jërëjëf soxna Awa nangu nañu ziar bi nangu nañu vëy yi ëlbatiku di ko tasaare ci biir askan wi ndaxte Sénégal nii rekk la benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar lu waay am ci xam-xam yéene nga ko partagé ka askan wi ba ñu àndandoo. xeex mbas bi tey ñaan yàlla yàlla muccal ñu ci kenn réereetul mbir ci coronavirus bi gane ci àddina wërngël képp te taw a ñibbi état ak ay stratégie de lutte yu dul jeex waa kër docteur ñu ngi ci gëstu doomu jàngoro bi ñu ngi ci faj mi it pour muccal ay bakkan organisation locale yi

te lu muy metti metti yi tamit nag euh, soxna awa faaw ñu dem liggéey ñëw dunde comme li nguur waxoon il faut vivre avec le virus mu mettre ñu devant le fait accompli mbas mi nag ah, am na riposte yuñ ci def pour jéema bëre ak moom moo tax may ëlbati awa di la laaj à quoi consiste la riposte contre le Covid-19 jërëjëf Marème ma lay ziaraat bu baax a baax di la jaajëfal la riposte contre le Covid-19 wax nga ko léegi pandémie boo xam ne la gis nañu ne toujours nombre de cas contaminés de dafa yokk lool cas yi ñuy wax cas communautaire ñi nga xam ñoo gën a jaaxal ku nekk loolu tam day di law ñu ñaan toujours yàlla musal ñu ba génneñ ci ak jaam ak salaam riposte contre le Covid-19 mooy li nga xam ne nit ñi moom lañu préparer. pour ba mëx mas mi boo waxee nit ñi nag àddina woon ngeen képp la ñu commencé ci suuf ci gox goxaan yi ba jëm ci état jëm ci au niveau mondial c'est ça la réponse contre le di Covid-19 ndax xeex bi kat ñun ñëpp ko bokk dañ naan pandémie bi pandémie worldwide la dafa wër ngir àdduna wër ngir la kon riposte bi tam noonu lay mel day worldwide maanaam day yaatu lool mais ci liñ ko gën a bëggee ak li nga xam ne lañ ko gën a xalaatee mu jógee ci suuf état def na li muy def am yu mu jaglele santé am yoo xam ne def na ko yooyu yëpp mais ci suuf au niveau local ci gox goxaan yi war nañoo organiser la réponse contre le covid mooy maanaam comme parage la parage nag bu amee c'est parce que nit ki dafa vulnérable dañ dafa am lu ko attaqué wala am lu ko puus mën ko mu jéem a defaraat taxawaayam taxaw ba dëgër di puus loolu nag c'est ça la réponse kon loolu dañ ko bëgg xool ci biir gox goxaan yi euh, noonu lay demee noonu la riposte bi war demee ci biir Porokhane kon loolu mooy la riposte contre le Covid 19. jërëjëf Awa kon état bu defee li mu war a def te nag boo ko xoolee nag état yëpp ci àddina yi wërngël képp ku nekk jëm nga ci li nga ci mën secteur bu nekk ñu jagleel ko luñ ko mën a jagleel. waaye nga ne yi tamit dañoo waroon na tamit gungewaale organisation locale yi ñoom it ca fañ ca mënta toll ñu xeex ak mbas bi mooy lan puus ko ba nga xamante ne du am doole ci biir askan wi waaye nag nee nañu naam nag nit ki nag boo koy xeex xanaa dinga ko won yoon amal ko nag li nga ko ci woon ba nga xamante ni nii ak nii la war a mën a xeexee ak mbas mi léegi nag mooy li ñuy wax ne rek euh, nit ki tamit boo koy boo koy may jën jàngal ko ni ni ñuy nappee moo gën a gaaw kon nag awa riposte baa ngi nii yaakaar naa ni am nga ci ay proposition yi nga xamante ne mun nga ko euh, baaxee organisation locale yi comme ça ñoom yi tamit ñu am si nan lañ ci mën a taxawee ba mën a adapté wu ci situation actuelle bi. Ah,

état sax organisation locale ñoo ko orienté dafa jël riposte am wàccee ci askan wi mais riposte bi ak organisation locale yi la ko waroon àndal pour mën ko def pour wax dëgg yàlla mu am des impacts positifs sama proposition loolu la état dafa war a ànd ak organisation locale yi pour riposter contre la le Covid 19. noonu la koy defee dafa am ay orientation yoo xam ne war nañ ko jël muy ay xàll xàll yooyu nag orientation yi dafay am ay axe axe bu ci nekk dafa am loo xam ne moom moo koy moo koy xanaa tënk muy axe bu njëkk bi muy sensibilisation sensibilisation bi activité transversale la war toujours ñu wéyale ko toujours di def bu ñu bàyyi bu ñu noppee ci ñaax nit ñi sol masque di ñaax toujours respecter la distanciation euh, pour un mètre ñu ñaax éviter

ñun ñu bàyyi rassemblement yu bari yi ñuy def ndax am na yoo xam ne euh, mënul ñàkk mais am na yoo xam ne mën naa ñàkk donc euh, axe boobu sensibilisation transversale day continuer ci la ñuy def activité yooyu ma lim yëpp di sensibiliser nit ñi di dem di leen wan yooyu

yiñ ko yi fajee dañ ko jéggaane kon jot na pour ñu jox médecine traditionnelle gëddëm accompagner ko pour dooleel ko mu gën a gëstu gën a defar ay produits ndax am na ay produits yu fi nekk yoo xam ne jege na ak artemisia bi ñiy wax ne mën na dara ci mbas kon ñu jox war nañoo jox médecine traditionnelle ak xam donc deuxième axe bi mooy riposte bi ci jëm ci plan sanitaire la doon nan la ñu mën a def ba au niveau de san euh, ci waaru wér gi yaram ak ci waar faj nan la ñu mën a def ba mu gën a ñoŋ ci affaire euh, xob ci affaire reen ci affaire sunguf loolu yëpp ñu gën leen a dooleel accompagner leen loolu am na solo parce que am na yeneen dëkk yu ko fay def mais Sénégal néew na euh, ñi def médecine traditionnel médecine ci plante naturelle yi vraiment amuñu ku leen jàppale amuñu ku leen dimbili kon foofu organisation locale yi war nañ taxaw seetlu dimbali ñooñu gën leen a may doole gën leen a ges ges gestu bu baax a baax boole leen ci seeni biir plan d'action parce que plan d'action riposte bii dafa yaatu organisation locale yi ñoom ñooy woote ñooy tëgg seeni ndënd euh, samp pour xeex andi seen contribution ci xeex bi mais ci wàllu sanitaire nañ commencé loolu beneen bi ñu ñaax état itam mu gën a dooleel sante ndax santé euh, gis nañu ne néew na doole lool lool lool néew doole la ndax am na matériel yu bari amu ko am na ci garab yoo xam ne santé may ñu leen ay mën-mën ak yoo xam ne dinañu mën a gën a gëstu ci lu jëm ci wàllu ay maladie infectieuse lu jëm ci wàllu affaire yu pandémie yi nii parce que lii am na dëkk yoo xam ne bi mu leen songee ñoom lu mu gaaw gaaw wuti nañu am nañu fu ñu mën a taxaw mais gis nañu ne loo xam ne dafa song Sénégal bu baax a baax surtout Afrique Afrique su fekkoontoon ne doole bi pandémie am noonu la amee fii kon léegi kenn desatu fi mais yàlla dimbali nañu def nañu sutura ba nga xam ne ah xëy na kaay ñuy gën a yokk mais quand ñuy gëstu xool nan la war a mën a xanaa fajee Covid 19 ak li nga xam ne moom lañu yàlla may beneen bi bu jógee ci plan sanitaire bi. damay jëm ci wàll plan alimentaire bi plan alimentaire mooy ak alimentaire bi mooy nan la ñu mën a def ba li ñuy lekk mu nekk sunu garab loolu pour ñu def ko il faut ñu dooleel mbay mi il faut ñu dooleel sàmm organisation locale yi nañu gën a dëgër ci mbay ak sàmm ci micro jardinage ci jardin de maison yi nañ ci góor góorgóorlu bu baax a baax nañ ko dekkalaat bu baax a baax a baax baax parce que buñ ko dekkalaaloon rek mën na andi yeneen jafe-jafe bu jógee ci mbay meeg sàmm bi ñu war leer a dooleel jox leen gëdd ba pare nag nit ñi organisation locale yi def ay vulgarisation pour nit ñi gën a mën a lekk li nga xam ne moom la ñu bàyyee buñu bayé ba mu bari nit ñi aussi nañu accepter di lekk li nga xam ne moom la produire localement c'est important ndax gis nañu tey dañoo am problème ci ceeb bi nga xam ne moom la ñu waroon séddale jox nit ñi ci riposte contre Covid 19 dañoo mujj obligé dem ba di xanaa dem importer ceeb bu bare bare bare bitim réew. pour andi ko fii lim ñu coûté coûté nañu très cher même dëwlin bi moomuñu ko suukar si moomuñu ko ak yeneen ak yeneen ay espatek bagitek yooyu yëpp ay macaroni yooyu yëpp ni moomuñu ko tey am na usine quelque usines yooyu gis ñuy defar macaroni ak spaghetti comme gis nañu am na boo xam ne fii ci Kajoor ci Thiès am na benn usine locale boo xam ne day defar ay macaroni ay espagnol yooyu mais pourquoi pas yeneen ak yeneen usine am yu mel noonu di ko defar ba pare nag ñun méngale euh, production bi aussi ak matière première boobu ñuy utiliser ñoom ñu koy jënd ci production locale bi lu am solo la dangay xool ceeb ni ñu waxoon ne autosuffisance alimentaire programme mais loolu doyul mais dañuy dem ceeb am na variété yoo xam ne du ci riz de la vallée dong lay doon am nañu nu ñuy xam ne noonu la ñu mën a defee capter dimbali baykat yi ñu capter ndoxu taw bi ba nga xam ne dina mën a toog ci benn béréb lu mat 4 ba 6 mois ñu mën faa bay ceeb am na fii ci Kajoor te am na ci feneen ak feneen mais dañoo amul variété ceeb bi nga xam ne moom la adapté loolu moo tax mënuñoo bay foofu mais Sénégal fii fi mën a bay ceeb dafa bari mooy riz pluvial boo déggee ceeb riz pluvial mooy ceeb bi nga xam ne ndoxu taw bii lañ ko bay am na ay baafon ay ay xur yoo xam ne fii ci Sénégal mën nañ ko faa def organisation locale yi aussi nañu insister ci loolu ñu xool mbay mi vraiment nu mu war a gën a mën a bale bëree na bari bu baax a baax a baax bu ñu paree ci bay bu bari boobu ak élevage bi aussi ñu dem ci nag xar béy mais ginaar aussi am na solo te moo gën a gaaw bari ba pare euh, fumier bi nga xam dañ koy jëlee ci ganaar mën nañ koo utiliser ci lu baree baree bari ci dugub ci bisaab ci ñebbe yooyu yëpp dañ ko ci utiliser donc euh, loolu am na solo pour ñu insister ci organisation locale yi ci wàllu bu ñu waxee ci wàllu mbay moom ba pare nag dañoo war a gën a dëgëraatal transformation produit loko yi transformation produit loko yi ñi fi nekk ñu gën leen a dooleel gën leen a fullaal gën leen a faydaal ndax foo dem léegi ci gox-goxaan yi organisation locale yi ñi ngi yëngu ci wàllu transformation produits loko yi mais dañoo am problème pour jaay ko parce que sénégalais yi benn bi am nañ complexe d'infériorité beneen bi itam dañoo war a vulgarisé maanaam togg maam yi togg maam mooy comme ay sànqalu buur ay ñeleng ay euh, euh, ki maafe mboq ay dugubu jën dugubu jën day mel ni comme ceebu jën nga def ko dugubu jën c'est important nit ñi sukkandiku ci li nga xam ne moom la ñuy béy pour ñu togg ci ndékki añ am na importance ci axe boobu tam ci la ñuy gën a dooleel planification bi mooy maanaam li nga xam ne moom lañ def bu njëkk ba dañ doon wax mburu ban tabax benn fuur boo xam ne matt la ñuy lakkee ñu defar sunu mburu mais mburu boobu dañuy def mélange xanaa dugub ak mboq mais dugub ji moom mooy ëpp fa ñu dugub bee ëpp ñu defal ko mburu di ko dékkee donc loolu euh, war organisation locale yi war nañ cee gën a dëgëral seen taxawaay kooku ci plan de riposte contre le Covid 19 bi da cee am doole lool nit ñi nañuy lekk li nga xam ne moom la ñu produire fii moo leen di gën a may wér te mooy gën a contribuer sur l' locale mooy koom-koom bi nga xam ne mi ngi am ci gox goxaan yi koom-koom yi am ci gox goxaan yi suñu bëggee mu dëgër mu law il faut ñu dooleel ñi nga xam ne ñoom ñooy bay ñi nga xam ne ñoom ñooy sàmm ñi nga xam ne ñoom ñooy transformer c'est important ba pare nag yombalal leen lu jëm ci wàllu commercialisation ñoom ay sachet yu ñuy conditionné yu baax de bonne qualité yu rafet ay étiquettes yu rafet vraiment ñu jàpp ci bu baax a baax ba nga xam ne daal lépp dina rafet dina sell surtout sellaay bi dafa am solo ndax ñun liñ ñuy këpp nii tout venant la mbalit la de tout venant la on n'est pas à lekk yi nga xam ne moom lañuy ñuy jëlee bitim réew du loolu mooy tax ñuy wax fait que votre alimentation soit votre médicament du lekk googu kon Marème ñetti riposte yooyu moom laa wax axe majeur yooyu nga xam ne ay def naa ci ay yëngu-yëngu ci biir yoo xam ne nit ñi war nañ cee bàyyi xel bu baax a baax organisation locale yi war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ndax tey état booy xool moom xeexam un mois deux mois la bu tële wane ko carrément ne daa tële donc ñun ñoo ci des ñun organisation locale kuréel yi ñu ne nekk ci gox-goxaan yi ñoo ci des kon nañu gën a dëgëral suñu taxawaay proposition plan d'action boobu ma joxe ñu xool ko bu baax a baax ñu jëfee ko bu ñu ko jëfee ci gox-goxaan bu mënti doon imposer ko sensibiliser nit ñi vraiment mën na porter ay fruits mën na andil jur ci askan wi lu baax a baax a baax ba nga xam ne bu ëllëgee buñ amee lu ñu bëmëx ñun dinañ am fu ñu wéeru wala bu ñu amee lu ñu bëmëx aussi du ñu jekku comme nu ñu jekkoo nii Covid bi jekku na bu baax askan wi muy sur le plan local di sur le plan national sur le plan mondial jekku na nit ñi bu baax a baax a baax mais ñun Afrique ñun dañ ci rawati parce que waajaluñu ko sóoraale wuñu ko loolu moy sunu problème waajaluñu ko sóoraale wuñu ko loolu mom motax kon li nga xamné mom la wax li moy proposition alternative yi nga xamné mom lañuy def ñun pour propos euh, alternative moy manam li nga xamné mom moom wara mëna def pour adapter wu ndax nit ki bu dara songee ba mu vulnérable mooy manaam mu ñàkk doole war naa jéema a wut nu muy rawee nu muy rawee nag mooy mu développer ses capacité d'adaptation ses capacités d'adaptation face à la menace capacité d'adaptation mooy nit ki li nga xam ne la développé dans l'immédiat loo ne lu am la luy sax dàq lay doon ba ne ko songu dina fexe xeex ko ko mu capacité d'adaptation yooyu nag nit ki am na nit ki moom moo ko war crise yu bari dab nañu mais fexe nañu crise 1929 la crise économique ne nañu citer la peste mën nañu citer la la première guerre mondiale et la deuxième guerre mondiale ne nañu citer la coexistence pacifique à guerre froide Nous avons une capacité d'adaptation pour développer nit ñi développer nañ ko ci dara lu leen songoon riposte contre le Covid ci kaw anam yi ma waxee ba ci sa biir kër commencé ci biir kër ga ñu commencé bu fekkee am nañu benn espace ci biir kër ga ñu fexe ci biir espace ba ñu am luñ fa bay wala ñu am wala ñu am xanaa ay taabal. li ma li ma doon fi daanelee sànq mooy mbayum ci biir. Ah, famille ñu bay comme par exemple légumes yi nga xam ne bu nekkee ci teeru bi légumes yi nga xam ne ñu ngi koy dem jëndi mais mën nañ ko bay ci biir kër gi mën nañ ko bay ci kër gi mën nañ ko bay ci kaw terrasse ci bu dee ci terrasse la dangay ngay ay taabal ay taabal yu ndaw yoo xam ne day am largeur bi zéro mètre cinquante longueur bi nekk un mètre vingt muy bois de sapin bi lañ koy defee taabal yi cherul liggéey ko aussi jafewul nga développé sa vraiment jardin bu ndaw sa kaw terrasse wala sa biir kër boo jëlee xanaa euh, taabal di defar ko ba pare ni ma leen ko waxee un mètre vingt sur euh, zéro mètre cinquante boo ko defaree ba pare da nga ciy lal toile bu noir boobu toile bu noire boobu nag boo paree da ngay wë ñëw boole xottu gerte bu ñu dëbb ba mu nooy nga boole ko xeeru latérite bi ba pare nga wut son kii euh, ñaxu ceeb loolu ngay boole nga sotti ko ci kaw toile boobu boo ko sottee ci toile boobu nag loolu mooy substrat solide bi nga xam ne moom moo lay permettre pour nga bay booy bay dangay wut lu mel euh, benn Euh, bay ben goutte comme spray comme boy xol parfum de chambre yi genre bouteille yu mel non mom ngay jël mom ngay arroser soti sa ndox ah di traiter plante yi ak euh, laaj wala kani wala ay xobu nim boko defé di nga am sa légume bu baax ni nga am nana di nga am basilic comme ngun ngun di nga am mu mën fajo baax ci nerf bu baax baax hypertension artérielle am sa naano menthe am sa naano ordinaire am sa salade am sa légume yooyu yëpp nga mën ko cee am beneen bi gën a neexati mooy mën nga cee def sab-sab sa yeneen légume yëpp nga xam ne yow da ngay bay sa biir kër ba bu desee nga génne ca sa bund kër di jaay wala ci penc ma loolu yëpp ci riposte contre Covid-19 la nit ñi nañ ci bàyyi seen xel bu baax a baax a baax ndax communauté yi développé yëpp si affaire yooyu lañ jaar mais man li may bañ mooy nit ku toog ne yàcc na yasar dala song la dala dala nga naan ci yàlla ci yàlla sunu borom yàlla dina andi saafara bi yàlla dina am mais ndimbal na ci fekk loxol borom ñaan goo ñaan tam yàlla da ngay dimbali ñaan ga pour mu dem donc nit ñi nañ jàpp localement ne loolu il faut ñu def ko lekk li nga xam ne moom moo mën a ñoree ci suñu réew ndax fi mu ni soon nañ de sonn nañu lool lool lool lool lool état nag moom raxasu na bu yàgg kon ñun ñoo fi des te nag fu bañ a soon nañu dellu ca fa cosaanu di bay di dunde wàññi dëwlin bi bàyyi rosi bi bàyyi bouillon local yi nga xam ne moom lañu ñu def ci industriel yi sunuy maam sunuy bàjjan sunuy tànta ba ñuy togg ñoom dañ daan jël laaj soble kaani ak xorom dëbb ko daal koy rosé mais rossi bi yëpp diwlin bi du ñor diwlin bi du ñor de man sama maam bu ma ko ba mu doon togg man mosuma dégg sama maam rossi li may dem suñu dëkk yëpp vacances mosuma kaa dégg mu rossi mosuma koo gis mu vraiment utiliser comme ay kimmaseeg ay jimboog ay lu kenn xamul déedéet bouillon yi industriel yi mosu ko utilise sama mam te dund na ba cent dix ans moom da daan jël taal taalam matam teg ci nam ñu lug ci ñaari pot ndox bu ci julugee ñaari pot ndox daal di ñëw def légumes yi yëpp ci biir dëbb dëbb xanaa nokkas bi def ci biir sama su demee ba loolu baax nag xol odeur bi sax odeur bu muy gilli yow dalay attiré pour nga ñëw dalay attirer pour nga ñëw yow en tant que personne nan lu lan la neex la ñuy war a togg fekk maam rësiwul su demee ba nga xam ne war naa tey mu sóob jën yi def jàmb tamaate njambam ba mu jàmb fekk ñu ngi ko dindee ci làkk bi ci ginnaaw sunu bâtiment bi daal andi lépp loo xam ne daal dañ koy jëfandikoo day nekk làkk bi ci ginnaaw loolu la ñuy wax làkk jigéen ñi ñoo ko doon def pour ba mën a am ay légumes bañ a xanaa dem jënd duñ jënd fenn te loolu ba léegi c'est possible parce que ñun gën nañu xarañ gën nañu am jot bi léegi kon pourquoi pa nañ bàyyi yaafus bi nañu bàyyi copie collé bi amul solo moo ñu néewal doole ndax ñun su fekkee ne luñ ñu andil ñu consommé waxuma la mbas nii mais booy xool Afrique yenn dëkk yu bari ils sont économiquement et cliniquement mort il agonise am na dëkk yoo xam ne yu mel ni suñu yos yi non dara doxul koom-koom gi war nañ koo xoolaat donc ñun nañu gën a dëgëral sunu taxawaay ci produits locaux yi sunu njaboot yi ñu xiirtal leen ci bay dunde ñaata ganaar nga mën a def ci sa waañ jël karton def ci say ginaar wala da daaj benn kaaf bu ndaw boo xam ne mën na ñàkk sax am yenn solidité yenn matières yi benn palette ngay dem jënd tas ko am ci sa mbaar jël sa grillage bu fekkee ne ginaar dañoo tàng lool nga génne leen ci waañ bi teg leen ci biti ñuy féexlu ba nga xam ne yow deux étagères wala ba trois étagères mën nga ko am ci benn palette bu bu neexee yàlla te rek wax dëgg yàlla nga jënd xanaa ay sujet yu xarañ mun nga cee am say ganaar yu bari yoo xam ne boo ko jaayee sax mën nga ko di jëfandikoo sa biir kër kon nañu xoolaat bu baax a baax taxawaay am na solo lool donc euh, Marème loolu la amoon lu may proposé euh, li duuf ci ñay bi xajul ci cin bi xanaa ñuy euh, waxaat rek ne nañu jàpp ci lii beneen yoone aussi ñuy gën a développé waat ci riposte contre le Covid 19 tey andi naa détaillé naa ay mbay moo xam ne mën nañ ko mbay ci biir kër ak sàmb ay développement de riz pluvial mbay ci espace yi nga xam ne mooy xur yi ci ceeb lu mën a nekk la ndax ci fi ñun fii ci Kajoor am na ñu riz pluvial dem naa Kaolack gis naa fa riz pluvial mu nekkoon loo xam ne euh,

kon nga xam ne ñun war nañu xoolaat suñu bopp bu baax a baax a baax a baax am na am na loo xam ne aussi ah, dafa am solo ma xaw koo fay tuuti mu bokk ci les cinq facteurs de production muy li gën a am importance mooy wàllu suuf si suuf si na ci ci gox goxaan yi organisation locale yi gën a def sensibilisation pour nan lañuy def ba nit ñi téye seeni suuf nañu gën a sensibiliser baykat yi ñu gën a mën a téye seeni suuf gunge leen jàppale leen may leen doole pour ñu téye seeni suuf ndax suuf si bu ñu gisee benn ña benn at ñaari at bayuloo ko mën nañ ci euh, commune bi mën na ci teg loxoom wala mu jox ko keneen koo xam ne dafa bëgg a bay te généralement toujours boobu gisee keneen ku bëgg a ñëw jël bay kooku ay cent cinquante hectares lañ koy jox fekk ne kooku agro business sa kooku bayul sax pour kenn dundee moom day bay pour def ci poosam loo xam da koy yóbbu extérieur daal di ko fay jaay def ci poosam kon nañu bàyyi xel ci organisation locale yi ñu gunge nit ñi pour ñu xam nan la ñuy téyee seen suuf nan la ñuy téyee seen suuf xam nga mooy lan nu ñuy téyee seen suuf mooy suuf si ci amul këyit ñu wutal ko këyit dem lëkkaloo ak commune bi ak commission domaniale ñu xam ne suuf si ñoom ñoo ko moom ñu wutal ko këyit c'est important parce que suuf bu xasee ba am këyit ñu koy exploité day dañ koy mën a garder ay ati ati at ma nga xam ne maam bu ko fa jógee bàyyi koog papa papa bu fa jógee bàyyi koog doom kon organisation locale yi nañu jàppale bu baax a baax ñi nga xam ne dañoo am suuf pour ñu téye seeni suuf pour quoi pas organisation locale yi ñu xool nan la ñuy organiser woo sax pour di produire ay ay jiw ay semence mooy ay semence locale jiw yoo xam ne dina adapté ci dëkk bi nga xam ne boobu ngay nekk ba ñu bayee ñu gunge bu baax producteurs yi mooy ñi nga xam ne dañuy bay gunge bu baax ñi nga xam dañuy sàmm sàmmkat yi lu ñu leen di sensibiliser mooy nañuy wut suuf ndax boo jëlee cent ci sàmmkat yi ci Sénégal quatre-vingt-quinze pour yi amuñu suuf ñoom dañuy sàmm rek di dem loolu nag ci loolu lañu war a bàyyi sàmmkat dafa war a am tool tey dafa war a wut tool tey wutal tool am ay këyit naam bu fekkee sax benn partie bi da ciy bay muy dund ak njabootam mais beneen partie bi da ciy def ay culture fourragère mooy bay boo xam ne day tax pour dundal juróom at wala nga xam ne moom dina mën a tenir ba neuf mois sax dina ko mën a ba dix mois nga xam ne deux mois wala trois mois yi koy des loolu nawet bi dina ko eggale donc organisation locale Nous lëkkaloo ak commune yi ak à travers la commission Dooma sous suuf si ñu ko producteurs yi képp koo xam yow yaa ngeeg suuf wax ñu yombalal mais développement de synergie la laaj lëkkaloo ak mise en relation la laaj boo xam organisation locale ñoom ñoo ci war a taxaw bu baax a baax moom mooy thème bu sensible lool muy la foncier foncier bi mu nekk loo xam ne lu loo xam ne lu doy waar la kenn mënu koo régler kenn mënu koo lijjanti ci Sénégal mais li ñu mën a taxaw daal mooy jàppale baykat yi ak sàmmkat yi ba seeni suuf ñu nekk ci seen loxo ñoom ay kayit yu wóor yoo xam ne tey bu ñu bëggee def ay investissement ci seen tool sax ñu mën a këye këyit boobu woon ko banque mu jox leen ñu renforcer seen sur sur surface cultivable mooy maanaam fi ñuy bayee ñu renforcer ko wu lëkkaloo ak xanaa waaye xarala yi mooy la recherche ñu jàppale leen ci wàllu jiwu ak jox leen ay espèces animal yoo xam ne dina gën a productive ci wàllu fumier organique mooy maanaam tos ñu jàngal leen itam tos boobu nan lañ koy booleeg ñax mi ba nga xam ne buñ ko duwalee ci suuf si suuf si am doole yooyu yëpp ay tàggat yoo xam ne organisation locale yi war nañ cee taxaw bu baax a baax a baax kon la euh, Marème ma dellu siwaat ci yow kontaan lool si yow kontaan ci sa plateau kontaan si li ma invité accompagné bu baax a baax maa ngi lay maa lay sant bu baax a baax soxna Marème kontaan naa lool si yow macha allah. jërëjëf euh, soxna Awa exposé bi am na solo riche na en enseignement yal na tàbbi ci nopp kuy dégg te it aussi tamit organisation locale yi won nga leen yoon bu ñu gën a dëgëral seen taxawaay.

plan sanitaire boobu Mathior Fati ne nga ne nañu accompagner médecine traditionnelle bi parce que nee nañu des fois da ngay xeeb li lay faj day nekk sa wet nga xeeb ko dem gaani ji ay alors que bi ngay xeeb de mën nga ko jël utiliser ko te du bëree gaañ xanaa lan la rek ñu bu état gunge leen ba nga xamante ne dinañu mën a améliorer euh, seen qualité euh, produit. léegi beneen axe bi aussi toujours nga ne nañu renforcer accompagner aussi plateau médical bi nga accès aux soins dina facile pour nit ñi nga faju dina yomb structure de santé yi bare lool ci gox goxaat fu waay mën na ba la jafe ci plan consommer local. farataal mbay mi ak sàmm mi léegi nag ci biir mbay boobu sàmm bi il faut que état accompagner leen aussi tamit ñu mën a am variété ci culture yi nga xamante ne ceeb variété bi nga bëgg soo ko amee pour pour nga am ko di nga ko mën a bay am nga espace mais nag grain boobu ngay soxla jiw boobu moom moo ci dul am ba nga xamante ne pour nga bay ko day xaw a jafe kon état na leen gunge ci wàllu jiw ci solo aussi tamit euh, organisation locale yi di utiliser lu transformation ces produits locaux parce que lolu aussi tamit li nga bay dara léegi des fois pour écoulement bi day poser euh, problème mais aussi tamit nga mën ko transformer mu mën la jural euh, dara té aussi tamit nit ñi des fois dañuy gis lu ñu wara mëna mën fi liggéeyee ko fi mu nekk ci qualité bu mucc ay ñu dem jéggaani ko dem diko jëndé ji fenen kon nañu favoriser surtout consommation locale bi mais té fi nga jéxalé awa moy walu suuf parce que ku ne ba agriculture yal na fekk ne am nga suuf soo bayee ku ne élevage yi tamit soxla nga suuf soxla nga espace bi nga xamante ne aussi tamit di nga ci mën denc sa njur nga ëlbatiku daal di ne am na ci wàllu mbaykat yi mu éleva éleveurs yi mm, ñi nga xam dañuy def élevage war nañu mën a am espace boo xamante ne dinañ ci war a mën a bay loo xamante dinañ ko mën a dundee aussi tamit seen i jur war cee mën a jëriñoo waaye loolu yëpp it tamit ñu ne na nga ne organisation locale yi nañ ci bay seen waar bu baax yee si nit yi ñaaxaat ci nit ñi bu baax ba nga xam xamante ne seeni suuf dinañ ko mën a protéger nan nga koy protéger mooy espace bi nga moom nga wutal ko euh, këyit mu wóor ba nga xamante ne bu ëllëgee keneen bu koy ñëw yi tamit day fekk ne nekk na ci loxo yu wóor parce que su ngeen ko protégé wul aussi tamit day ñëw benn ak agro business moom mooy ñëw jël ko jënd suuf si bay bayloo leen ko ba pare ëlbatiku dem jaayaat ko liggéey xaalis ci seen kaw alors que yéen seen suuf la kon nag protéger leen seen suuf mooy seen patrimoine mooy seen richesse ba bu ëllëgee yow boobu la amee si këyitu leer say doom mën nañ ko doon sëy sët doon doon doon naat ko kon lépp rek taxawaay bi rek ñu xoolaat kon naka awa temps bi rek moo ñu xoj waaye émission bi am na solo solo boo xamante ne te aussi tamit muy lu ñu namoon lool lu ñu namoon lool ndaxte yow partage ak yow émission ce sont moment moments yi nga xamante ne jàngat rek lañ ciy def waaye nag euh, comme que yoon yamul ci benn ñu ngi lay bàyyi rek euh, nga nuyu ak euh, auditeurs yi tàggu leen ak ñuy dox euh, dig daje beneen yoon ci beneen numéro aussi tamit ñu waxtaanee ko comme nii ñu ko waxtaanee rek nii tey ñaan yàlla yàlla may ñu tal ak euh, fekkee kon nag awa tàggul sa auditeurs yi ak auditrices su sunu kër FM yi. waaw euh, Marème ma lay delloowaat njukkal bu baax baax baax ci li ma. invité ci sa plateau bi ma def émission ci développement local mu lu ma sawar lool macha allah di wax auditrices yi ak auditeurs yi maa leen di gërëm di leen sant ci déglu taaxarlu bi nga ma taaxarlu déglu ma ma séddoo ak ñoom li nga xam ne moom laa xam ci riposte contre le Covid 19 di leen gërëm di leen sant di la gërëm yow mii Marème yow mi nga xam ne yow yaa ma invité di gërëm sunu kër FM ci PDG ba ci personnel am yëpp maa leen gërëm di leen sant Mariam li may maa ngi tàggatoo auditrice ak auditeurs yi di leen wax jox daje dig dig daje ba beneen yoon beneen alxamis incha allah ak beneen thème ci développement local

globalement mooy manaam nit ñi nañuy bay di dunde pour gën a mën a am taxawaay gën a mën a am gëdd ba nga xam lépp loo xam ne jóge na ci bitim réew ñëw song leen du leen ëpp doole donc consommons local pensons local pour agir globalement je vous remercie jërëjëf Awa ah si sa slogan yi nga terminé rek ma ne tamit moom lay tëjee te tàggatoo aw nga wax lu am solo consommons local pensons pour agir globalement loolu buñ ko defee réew mi képp ku ci am yëngu-yëngu di nga gis sa bopp te lépp rekk ci sotti ci def ci lay mujjee muy lan ñuqali soqali Euh, Sénégal euh, kon nag euh, fidèles auditeurs et auditrices bu sunu kër la bu FM ah, émission bi émission politique de développement local et rural ci thème comme yàlla may ñëwaat ñu gisante waat ci jàmm ak salaam waa ñu ngi leen di jaajëfal.